وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير 2008 لا ويتي نقم دال دواتي ويتي موا مودون ويتا ويتي نون le journal ba wax ne trésor wu imaam dem na moom wuuta xot mbindeefi imaam kenn na foogul ne day wàcc léegi bilay bett na terees boo ko konte limba moo de bàyyi imaam tàggatoog ñun terees mbir la yen la bayee jaam ñi moom la fekki foofa manta ñàkka dem ci terees moom hasan ut la jam ñi jooy naan imam ku koy huutu wax yi uute huñ ne yàlla rekk xam uuti xam ga dem na imam hasan siise amut ku daan huute ca moom ñàkka xam bisab àllarba bam jullee gexe tàggoo dénk ay rakkam moom mbiram dal da dem boori minu yi moo doon sero heure la tàggoo sero fot la hasan moo jubal isaa sulsilati moom la imaam tàggoo rakku ñaareelam ba ci waxtu gexe yow boo firee saar wa xam ne imaam mii daal fam jëm ragalut fa bilaay moo jubal su tëraam sa moo tax guddi sax la dem moom mbiram kenn yëgut ko sonnalut ca kenn guddik alxames la xasan jot message ba xam ne mbir ma man na mu dem xëy ji moom alxames 14 août jot xibaar ba mu doon catastrophe ci suñu xol yi ñun amul luy garaaw fi ci ñun te ba mel ni dem ak Seex Xasan li metti na imaam Xasan Siise nawet lañuy ñuy tàggu fekk li baa ngaay waaj a dugg si amul nawet buy baax bëgg nu suñ imam bi lool li manta meññi baam sëñ Hasan bisab alxames la téléphone yi jokkoo poste yii de teg ñoom imam ay waxam jam ñi ñëpp ruxle wuuti pee yu baay ba kanoo ña ngay jël ñoom abi yoo da ñëw xam na muudu muudu yu ñëw ca bis booba paas ba seer na waaye jandut sëñ Hasan xamul lu seer ba njëgga duñ ko xam waaye imaam Hassan Cissé njëgam duñ ko xam alxames timis bañ jullee lal wasiifa asamaan sa xiin naay taw de jooy Hassan wasiifa wa naan ko imaam Hassan Cissé fekkoon dama sañ daal bilaay doo fi jóg jumaa ja ñuy dencee imaam Hassan Cissé jumaa ju mel noon bilaay doo to xam bu yàlla doon tiit kay keroog yëngub jaam ñi dafay tiit ba delloo jaam ñi moom xasan am na soxna soo far faatu ca booba raxmatoo di turwa bilaay am na saas njortana allahu yërëm soxna soose boole koog imaam mi ca birin liin soldaar yañ fa yónni xam na ñu caay jooyte jooyi soldaar yoo mbut bis na lool imaam Hassan Cissé xol bu diina ñor daal buñ ne tàggatoona bilaay foog nga jooy soldaar yeñ fa yónni xam na ñu caay jooyte jooyi soldaar yombut bis ba tis na lool imaam Hassan Cissé xol bu diina ñor daal buñ ne tàggatoona bilaay foog nga jooy seyqi Abdurahmaan ba muy noddu laay jooy xam na dootu noddal imaam bu gën bi ñëpp handa jooyo ut baak xaaxi buga jooy la handa toon moom bilay na jooy bisab juma kees ut ba xaaxi booy xutba la ñuy indi kees ga yaram yëpp a daw ka daan taxaw heure boob xutba moo de koor ba doy na waaru waay li yàlla moo ko sañ bisab juma kees ut ba xaaxi booy xutba la ñuy indi kees ga yaram yëpp a daw kadaan daan taxaw heure buub xut ba moo koor ba doy na waaru waay lii yàlla moo ko sañ jumaa jooja xamut lu mel noonu bañ ko sëlmalee naan na ngeen dem xañ gannaaw tàkkusaan daal la jël imam mi jox ko boroomam waay nit ña kenn damut dañoo taxaw foofa ñii da tudd yàlla ñii jàng kaamil xam ñu ngëb ñëpp bokk ñaanal imam Hassan Cissé yal na jot ca yool ba ñu ful ay jëfam quarante cinq moo doon juddub sëñ Hassan kii lan la andil diina kaaraangel ak sak karna naaju diina sagal diina lislaam imam Hassan Cissé sigil diina ji 2008 la wetti ñaqam dal de huitième mois moo doon wéetaayu wi ci ñun imam Hassan demam gaañu wéetal garab la xoon goo witta moo ci gën treize août billaayi la journal ba wax ne tresooru xam-xam imam dem na moom wuuta fat mbindeefi imam kenn foogul ne day wàcc léegi billaay bettana treize boo ko konte limba moode ɓaay mom imam taggatong ñun tres mbir la yen <laughs> baye la bahee jaam ñi mom la fekki foofa manta ñàkka dem ci tres mom hasan ut la jaam ñi jooy naan imam ku koy huutu wax ya uute huñ ne yàlla rekk xam uuti xam nga dem na imam masan siise amut ku daan huute ca mom ñàkkaam bisab àllarba bam julee gee tàggoo dénk ay rakkam moom mbiram dal da dem boori minuit moo doon sere heure la tàggoo sere fot la xam moom hasan moo matal isaa sul sillati moom la imam tàggoo rakku ñaareelam ba ci waxtu gexe yow bu firee saarwa xam ne imam mii daal fam jëm ragalut fa bilaay moo jubal Sutaram samo moo taxa guddi sax la dem mom mbiram ken yegut ko sonnalu tekken kenn guddig la hasan jot message ba xamne mbir ma man na mu dem xëy ji fukki fan ak ci aw barax lu mo rëxal fi di départ jam yi petit ko ca wax xibar ba ma ngay sikka saka imam ak demam ndax lu am la amul alxames 14 août la ñëpp jot xibaar ba mu doon catastrophe ci suñ xol yi ñun alxames 14 août la ñëpp ba mu doon catastrophe ci suñ xol yi ñun luy garaaw fii yu ñun ba mel ni dem ak Seex Xasan di bilay metti na imaam Xasan Siise nawet la ñuy tàggu fekkal baa ngay waaj a dugg si amul nawet buy baax bëggan suñ imam bi lool li manta meññi ba am sëñ Xasan bisab alxames la téléphone yi jokkoo poste yi de teg ñoom imam ay waxam jaam ñi ñëpp ruxle wuti pie yu baay ba kanoo ña ngay jël ñoom abiyon de ñëw jumaa ja ñuy dence imam Siise jumaa ju mel noon kay bilaay dootu xam bu yàlla doon tiit kay keroog yëngub jaam ñi dafay tiit ba delloo imaam jaam ñi moom jumaa ja ñuy denc Hasan Siise jumaa ju noon kay bilaay dootu am <laughs> bu yàlla doon tiit kay keroog yëngub jaam ñi dafay tiit ba delloo imaam jaam ñi moom rëg-rëg jaa mel ni bisab xara faat la tàngooram wa jaam ñi faale xuñ ko ñoom soldaar saa rang ñoom ak sababu fayda waaye rek la jaam ñi bilaay daatoon su fekkoon ne rongañ dafay jeex ci bët kay danaa wax ne bis boob la rongañ yi jeex su fekkoon ne rongañ dafay jeex ci bët këy danaa wax ne bis boob la rongañ yi jeex xol yi dañoo jooy ba walla bët yi jooy yi bilaay bët du jooy fi ku gën sa ñaasam xam na ñoo dañoo xëm taasi yooya moonte ñi de kiris karjaak bilaay metti na sàppor yaa nga ñëw de sowel nit ña sonnu dem ak sañ xasan gi yëngal dun biyam barhaamu baun waraun alifun thumma ha mi mun faydu tiijaan jox ñu ñuy naan